mais si liggéey boobu noonu jëflante boobu noonu tey ci cadre làmb tey euh, lim nga fi sànq Modou Lo mais à part Modou Lo maanaam yan yan mbër wala maanaam tey yan mbër nga du ma la sax ngay liggéeyal waaye yan mbër nga xam ne fi mu toll maanaam tey toog nañ ci lu wóor parce que Ama Baldé am na combat Modou Lo Balla Gaye Boy Niang Tapha yan mbër la leer na ñii kat toog nañ fu wóor. waaw mbër yi toog ci lu wóor moom bari na parce que mbër moo gis. Mhm. te yaa ngi ñaan lu yaa ngi ci lu dëgër. Mhm. ba mbër moo toog ci lu dëgër. Mhm. kii ñaan lu kii jéemul ci boppam dara koo xam ne moom dana day business ak koo xam ne fargu farluwul ci boppam. maanaam ku xaalis waaw ku ci wut xaalis. ak kuy jaay fa star ak yii ne doo si yegg fenn. mbir mbir mu mën a doon métier mu mën a métier woo mhm. boo ci sonnulee mhm. ñàkk ko ci doo ci gañe ku la ko mën a wax dalay nax mu mën a doon nag ci kaw suuf moo tax làmb football leneen ak leneen danga ciy sonn ñàkk ci gañe ci tur rek rek a ngi nii lu mu wax ay biam da koy def ngir làmb làmb làmb ji hmm? kon ko xa gëm na gëm na ñaan am na combat de gëm na ñaan n'est-ce xam na lu mu fay fekk li tax mu gëm ne tey bu jaay ay biam dina gañe ci loolu lépp gëm-gëm la mais boo ne ceel naan lii amul lii amul toogal foofu doo gis dara say moroom romb la fi di am li ñuy am di gën a toog say nopp naan laan amul de Sénégal mm-hmm. Sénégal noonu la de. Mm-hmm. boo toogee foofu danaa lii amul dala siy jàppale. mu lii amul dana naan lii amul toogal rek moom muy dem di rootal boppam di root di defar di root di la romb. yaa nga toog fi nga toog naan lii amul. mooy la ma la wax man moom làmb duma ma ci wax mooy comme li ma la expliqué du ma toog naan kii mooy daan wala kee mooy daan parce que xam naa li ci nekk. Mhm. carte kat parce que mën naa toog ne la. Reug Reug daan wala Sa Thiès mooy daan. Mhm. benn carte man dama xam. Mhm. carte bi fay ma ne ma ñaanal ma. combat bi mooy li ma la wax sarax bee doole. ma bàyyi fi kële. dam ñaanal ke conséquences yi ci nekk moo tax yow doo jël risque di toog naan ki muy daan. bir ne waaye nag su ma mbër su ma demee stade su ma demee stade man. ah. da ngay dem stade yow <laughs> man <laughs> ah, waaw man de dem naa stade waaye de melokaan beneen lay doon nag. melokaan mbaa du yaay sol kagul bi. ah déedéet déedéet déedéet man nag damay sol yooyu. ah yow yaa sol kagul bi. da nga ñëw naturel mais gars yi duñ la xàmmee daal. Mm, mm, waaye daal beneen melo daal lañ fay yor daal bu bokkut ak bu nit ñi xam ci man. dinaa dem waaw def li may def. kon mën nga dem stade ba man mii su ma la gisoon du ma la xàmmee. Mm, laa <laughs> ilaaha illallaah suñ demoon stade doo ma doone kii mooy diw. kaa li ngay wax. wallaahi laa azim parce que yonante yàlla moo ma. te doo masque wu doo def dara. déggoo lu ma la sant yàlla loolu yéeme na de. <laughs> ah dañ ne ci loolu lépp loo nekk na wóor rek. loo yor na wóor. Mm-hmm. loo yor na dëggu na sax. waaw ah, boo ci kiwee rek doo ci am regret. saison bi loo ci gis saison ren bi combat yi. waaw. Ah. kaw ju bëri jeeg roi des arènes bi. ah est-ce que combat ah, moom nag wax dëgg moom man monsieur kii xul daal mbaay daal. Mm. jàmm daal dina am. combat boo gis. combat boo xamante ni ñoom ñaar taxawaguñ. mën hmm. a wax ne lii day bëri dara wala du bëri dara xamul lu tax. Hmm. parce que tojal ak tooke yi. tooke ok. tey yow mënoo xam ndax jox nañ la tookeem joxuñ la tooke tey kii bu demee ba digg géew ga ñu door ko faa joxe mu dóor kay deret génn nag. da hmm. nga génn. am yi xew ci biir. te nit ñi duñ ko. dafa mel ni en général lamb ji foofu la maanaam cinq minutes yu mujj avant ñëw sifflet dafa mel ni des fois lamb ji foofu la foofu la sëriñ di ka di di bëree sax seen biir avant bëri di bëree. Mm, waaw ah déet waaw mbéy lamb dafa dafa dafa salte daal lamb ci boppam moo salte. warante bi biir lamb. <laughs> waaw waaw déedéet affaire du 15 ans. ñàkk a ñàkk maanaam ñàkk a respecté kàddu a respecté seen engagement maanaam waa Serigne mu def ba pare nga ñëw jàpp ne mu defal la ba nga daan nga jàpp ne maanaam sa sa doole moom la may. moom loolu moom xamul la moom loolu moom. Mm-hmm. mooy la ma wax rek mooy ñuy ñëw di affaire de sar waaye ñuy xam làmb dëgg. Mm-hmm. tey mbër dëgg. Mm-hmm. duñ ko jaxaane de. Reug Reug moom du foyee gàllaaj kooku moom man maa la ko wax fii Reug Reug. Mm. du foyee gàllaaj benn yoon parce xam na ko. da ngeen di liggéey yéen ñaar. ah, ah en daal mu ngi noonu daal waaye daal du foyee gàllaaje parce que xam naa ne man. Hmm. sama kanam mu jël oto jox ko sëriñ. sa kanam sama kanam mu yëkkati oto jox ko sëriñ ndax gàllaaj. oto oto. loolu ci village yi. Mbapat la ñëwoon làmb jooj jël oto jël yëkkati sëriñ. soo amul nee na amut lépp lu ma la fu leer laa kon kooku gën na sëriñ de ñeme ko. Ah, dafa am ñu xam mbir. mbir hmm. mbir mbir mi ngay sonn di ci ñàkk danga koy xam. dala jaral mbir moo xamul. mënoo say hmm. ñàkk sa xaalis. gàllaaj képp koo dégg mu ne baaxut. Hmm. amu ko gëstul ay mbiram. boo ko xoolee ba ci biir setul dëmm la maa la wax lii. képp kuy toog naan gàllaaj amul sëriñ amul nee ko yow dëmm nga wallaahi gàllaaj si cosaan la. non attends est-ce que nekkul ñàkk a gis ku baax mooy li ñu sànq rek sëriñu réseaux sociaux yi fii. déggoo lu ma la si TikTok bi te mënuñu di lekk xaalis ñu tamit est-ce nekkul moo tax zamanam. déggoo man la yow ba si Modou Modou yi. yow waaw yow ci sa jëmmu bopp. Hmm. yow xam nga fan ngay dem. te lu raisonnable boo ko déggee nit ki di ko génnee dangay xam ne kii carrément. Hmm. lu raisonnable lay génnee ci gémmiñam li muy wax ci fu leer la ko teg xam-xam la yor. xaalis bi nga ñaq. non doo ko jëlee noonu di ko bazar noonu di nga xam yow kii yenn circonstance nga koy yëkkatee di ko joxe. mais des fois ñu nit wala nga gis nit si réseaux sociaux bi muy TikTok nga am ci moom yaakaar. dégg lu ma la ñi nekk bitim réew bëgg kayit yu demee noonu. loo gëmut. loo gëmul du la jariñ. Eh yow lii sa passion la. Mm-hmm. loo gëm la. Mm-hmm. te pourtant bi ngay débuté da nga ci doon def ay nii di def nii di def nii. tey jógo ko daan mm. mm. tey yaa ngi nii di def di di kii. Mm-hmm. affaire bi àddina loolu la. du noonu. Mm-hmm. dëgg la sëriñ nañ ay mm-hmm. mais tamit yow miy dem ci sëriñ ba foog nga gëm ko. foog nga wóolu ko. yaakaara la yóbbu ci moom. nga gëm ko. fexeel ba yow miy dem ci sëriñ ba yorool melokaan boo xam ne sëriñ bi moom moo lay ruus. am na sëriñ soo xam ne ni ñuy daj fii Dakar. Mhm. tey mënuñu ko nettali seen diggante xale yu jigéen ñi. maanaam ñu leen di ñu tamit. santaas bu wér. parce que dañ lay waxloo benn point nga wax am ak yow benn appel vidéo wala ñu am ak yow benn relation ni téye affaire. fexe fexe di la chantage dafa bari. dafa bari réew mi li si nekk kenn mënu koo wax. dafa jaxasoo dafa jaxasoo. promoteur yi xam naa ne ñàkkoo si ay gaañ. lu hmm. ma tuuru làmb yi. nag man moom daanaka ñooñ moom sawaa sawa bi lu dul xaritu jiili boobu noonu waaju gàtt jooju. Ah, jàmm jàmm waaw. waaw ñeneen si des moom. Hmm. ah ça va daal. ça va daal. Hmm. bu amoon ci bëgg a dool yi rek laataa ngaa tëj parce que xam naa ne yitte yi bëri na te ñi soxla tamit xam naa ne bëri na lool lool lool. Ah, lañ ciy doole moom mooy doomu aadama yi nañ gën di fàggu ci seen bopp. nañ gën di fàggu ci seen bopp di gën di defar seen bopp. Mm-hmm. parce que ki la naan bul sangu. Mm-hmm. bëggul la sa jàmm. Mm-hmm. su loo mën a nekk téye ko ndax sa bopp. parce que jamono ji yàqkat yi ëpp defarkat te kenn yéenewu kenn fii ku ci nekk sa bopp. doy na la. parce que boo jàppee ne kii li wax mooy dëgg kii mooy lim lay wax mooy li lay yàqal. kon ku ci nekk ca la nga ca la nga jublu na nekk sa na nekk sa yëf na nekk sa yitte. Mm-hmm. nga dem ci ba mu jeex loo cay jëlee nga xam ne loolu la mooy nammeelu suñu borom. waaye kandaa ay déglu nit doo fi sa a jógee waaw léegi moo fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah